bul fatte sem video bi te nga abonné te bës kolos bi ngir man di topp suñuy vidéo mbokk alaykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu sante yàlla julli fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di nuy mbolé mbokk yi nga xamanteni ñoy baye xel seen seen bi di la grand secret a wolof mooy sakkare yu am solo yi nga xamante ni ñu ngi leen koy indi di leen ko firil ci firmu wolof mu leer te yëpp di nekk ay turu yàlla ak ay aaye alxuraan yoo xamante ni day làmboo njariñ yoo xam ne képp ku ko jëfandikoo rek di nga dajeek njariñ yooyu mu làmbool muy sekkare yoo xamante ni tamit sekkare yoo xam ne yu nu jarbu la mooy yu ñu seet def ko ba muy nekk kër yu wér a wér a wér ñu fas ko partage ak yéen comme niñ ci jariñoo yéen it ngeen jariñu si noonu loolu rek moo tax ñu leen koy indil di leen ko baaxee ndax wolof day faral di wax ne may nit ki jën jàngal ko ni nappi da gën naaw lu ñu jàng la te biñ koy jàng donte nag dajoon nañ ci ay coono ak ay xéewal yoo xam ne daan nañ ko yëkkati di ko def di ko jox ki ñu ko daan jàngal moo tax lenn ci li nga xamante ni xam nañ ko ñu koy partage ak yéen am na ci yoo xam ne nag nekkul yu war a génn yooyu li ñuy wax secret yi biir moom la <coughs> euh, di fàttali ne ñi nga xamante ni abonné guñ ci chaîne bi mën nañoo abonné ci chaîne bi ngir gën a mën a topp di woo yu am njariñ yi ñuy dugal ndax ci chaîne bi moom secret rek mooy li nga tax di fàttali ne képp koo xam ne tamit da nga bëgg a def lu mel ne seetlu mën ngaa woote ci numéro bi wala nga bëgg a ñaanlu mën ngaa woote ci numéro bi wala nga bëgg a listixaaru mën ngaa woote ci numéro bi di wax ne képp koo xam ne tamit bëgg nga ci garabu kàttan gi lay defar muy mos xam yi boo wootee ci numéro bi rek foo man di nekk ci réew mi wala bitim réew des na rek jot li ba nga jot si incha allah hambo ko yitta ñu ñëwaat ak yéen ci seen bene seen beneen njariñ njariñul warsak wu ànd ak bayre muy du ama am solo loo xam ne ñetti turu yàlla yii ngay gis muy baddo wadoodu haadi moom ngay wut kayit nga bind ko cent soixante quinze cent soixante quinze nag mooy tollok limu fidda fidda mooy xaalis nga jëlaat aaya bi ñuy wax ka anna xunnal yaaquutu wal marjaanu ka anna xunnal yaaquutu wal marjaanu moom nga bind cent quinze ba mooy jàpp limu fidda soo bindee badooxu wadduudu haadi cent quinze nga bind ka annaxunal yaaxuutu wala marjaanu cent soixante quinze ñaar yëpp lim yi nga xam ne moom nga koy bind mooy limub xaalis mooy fidda fidda ci arab mooy mooy mooy boo ko àddatee mooy jàpp xaalis ci wolof soo nappee ci loolu nga bind suyina linaaj xubbu saxawaati min an wal baniina wal xanaatiri l min ash wal fiddati wal xayli l musawamati wal anhaami wal xaarsi saalika mataaw xayaatu mataaw xayaatu dunya wallaahu inda xusna maab su gi na nag yaa ngi koy bind limub quatre-vingt-douze fois mooy jàpp limub Muhammad Muhammad quatre-vingt-douze la nga bind ko limub suy na suy boo koy bind suy bi ngay njëkk bind boo defee suy li naasi xubbu sahawaati minan nisaa'i baatu minen nisaa yi moom ngay takkaraar takkaraar boo ko déggee ci wolof mooy moom ngay baamu minen nga baamu ko six cent soixante daal di àggali suyina bi soo paree nga bind nga teg ci quatre vingt boo boolee lépp dalay jox quatre vingt douze suyina ñu la ko waxee bu leerut mooy baddo wadoodu haadi moom ngay bind cent soixante quinze ka alnoxmal yaaquut wal no nga bind ko 175 <clears throat> suyina li naasi xubbu sahawaati ba ila xusnu maab nga bind ko 92 suyina bi ngay njëkk bind nga baama minen nisaa yi six cent soixante leer na nga def ko saafara boo ko defee saafara nga wut juróom-ñaari doomi gura yu xonq bu dee danga bëgg bayra ji nga wut karawu jigéen nga def ci bu dee gur, bëgg ra góor nga wut karawu góor nga def ci nga sangoo ko juróom-ñaari fan yu tegaloo juróom-ñaari fan yu tegaloo nga koy sangoo boo ko sangoo ba ngaay li mat nga jël gura gi saraxa ko di wut miskit ak suukar diru juróom-ñaari fan yi ngay werdu lim yi ngay saraxa ko ngay miskit ak suukar waaw képp koo xam ne lii ñu wax dafa am loo xam ne leeru ci man ngaa bind laaj yi nga bëgg laaj ci commentaire yi wala nga woote ci numéro yi des na la ko leeral ba mu gën a leer incha allahu rabbi di leen fàttali ñi nga xamante ni ñoo mujje ñëw ci seen bi ñuy continuer di abonné tey partage vidéo yi ndax lépp ay njëriñu kese la ba beneen yoon ci seen beneen vidéo incha allah.